baal nga baal ma ci question bi ma la laaj. donc sur sur ce point là. waaw de parce que les choses très dama ne remercier naa parce que les gens essaient de parler d' moo tax ma dugg foofu y' a man fekk ñu ma ñuy nelaw ñu jox ma dem dikk dama nekk si ñi ànd ak président Macky Sall mu nekk fu mu nekk. mais yaa ngi tontu yaa ngi tontu ñeneen te man maa lay laaj. dama ne man nag gis nga Pape xam naa la. waaw aller dans le débat. ok aucune n' est tabou jeex na jeex na. toog nañu weer dégluwuñu ma dégguñu ma lan moom a génnee lan moo ma génnee gouvernement bi ma gis boo xam ni c'est tellement politicien et Sénégal yëpp kenn d'accordu ci je dis bien Sénégal yëpp kenn d'accordu ci y compris dans la mouvance présidentielle ku wax nag ñu dàq la man jee sacrifié mon poste par nekk ci dëgg lu fekkee ne loolu la ñuy considérer c'est un manque de respect ou bien manque de considération au président de la République nga nga nga nga revendiquer ko ñu avancer ci parce que am naa ci non non attends c'est revendiqué man maa ne à Podor voilà ça s'appelle la déclaration de Podor pour être plus clair si je savais en 2019 su ma xamoon en 2019 que président Macky Sall lii ñu yalwaani woon yëpp jox ko pour mu nekk président ba ma risqué si sama vie ak sama famille à Touba te je ne touchais pas la confrérie je touchais les électeurs di ko jël di ko jox Idriss Seck c'est fausser le le le le suffrage je n'aurais pas décidé de le de le soutenir en ko wax je le je le je le confirme. waaw maître est-ce que loolu reconnaissance la. yow yaa wax léegi nii 2014 lañ la jox Dakar Dem Dikk. Mhm. ba 2020 muy juróom benni at yàlla nga nekk ko directeur général. Mhm. est-ce que loolu keneen waru ko wax ku dul yow. Euh, sa sa question de réponses la indi yu rapide. est-ce que loolu keneen waru ko woon wax ku dul yow. ma wax la deux réponses lay indi laay indi. est-ce loolu ñi wax euh, ingratitude amuñu dëgg. soo dégloo di nga dégg de j'ai dit sa question mérite de réponses man je ne méritais pas ce poste boobu ñu ma koy jox li ñu ma fekk may nelaw rek ñu ma jox ma cadeau man ñi gën a xeex pour que Macky Sall toog foofu en 2012. j'en fais partie. mais maître loo ci def. non non est-ce que da nga ci def lu. kenn deful non non yow gis nga dama ne. non est-ce que da nga ci def lu kenn deful mais écoutez écoutez Pape da nga ñëw di poser question man maay répondre soo bëggee yàq sa émission nga yàq ko mais man maay répondre vous ne répondez pas à ma place kenn gën a ma mérité fu président Macky Sall toog man ak ñeneen ñun ñëpp mérité ni ko. gënoo ko mérité kenn. mais mën na nga waxee noonu peut-être je te rejoins peut-être sax mais dama ne li ma liggéey man xam naa ko. avec d'autres donc quand on di jox nañ ko dem dikk di dafa nee na le mot même bombardé dem dikk man j'étais candidat en 2012 pour être président de la République du Sénégal fa laa xamante ak président Macky Sall mu dégg ma dans l'émission Grand Jury de Mamoudou Ibra Kane mu ne je veux ce ce monsieur dans ma coalition j'avais tiré haut mais pourtant l'émission là est là déglu leen émission bi Mamoudou Ibra Kane qui n'est pas n'importe qui et dans lu mu à vous entendre on a envie d'applaudir parce qu'on pensait que lu ma nekk France fàtte naa Sénégal xaw ci dara sama programme c'était précis la ko président Macky Sall dégg ne ma kaay ñu ànd kenn ñëpp mënuñu jiitandoo ma ànd ak moom laaju ma ko benn condition ñu pare ma jël samay bagage dellu deux ans après mu wooma ne ma kaay ma dénkale la moo ma jël si bu ñu naan ingratitude ils ne connaissent pas sama jaar-jaar ak moom deuxième chose mooy deuxième partie question dafa am am Pateba lu mu wax quanton on n'est pas d'accord on dit non on ne se morfond pas dans des groupes WhatsApp fermés quand on n'est pas d'accord on dit non vous y mettez les formes mais vous dites non le fait de dire que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe là avec Idriss Seck nga xam ne lu mu waxul bés bu nekk il est tiré sur le président Macky Sall notre candidat. mais da fàtte ni Idrissa Seck. ni la Macky Sall woon noonu la ko wooye woon mu moom ci benn bokk yaakaar. attendez attendez Pape Pape defe naa ni vous êtes en les vingt six pour cent yi tax ba président Macky Sall dem nekk en face de président Ablaye Wade y avait Idriss Seck c'était nous les petits poussés yi nga doon wax nous les petits poussés ñun ñoo pousse yóbbu Macky Sall ba mu mën a affronter Ablaye Wade au deuxième tour y avait Idriss Seck qui traitait le président Macky Sall de traître du M23 c'était nous qui le traitait d'incompétent c'était nous bu doon woon seen sago président Macky Sall du toog fu mu toog donc ñi nga xam ne liggéey nañu pour mu toog fu mu toog c'est ceux-là qui sont qu'on viré parce que dañuy wax dëgg ceux qui sont battus pour que mu bañ fi toog ñoo toog tey tout le Sénégal le sait man sama waxu démb sama waxu tey je ne suis pas quelqu'un un tricheur nga xam ne bu président Macky Sall jiitoo ñu ñoom ñu topp ci ci ginnaawam bu ñu xoolee ñëpp marron beige bu xoolee fële ñuy rouge ñuy verte man mu xool ma mu bañ ma xool j'ai toujours la constance dans mes je dis d'accord ma. d'accord mais mais mais yaakaaruloo ni aussi propos yi nga tenir ay propos de trop la ay propos la yoo xam ni bokkul vraiment ci suñu suñu culture parce que mënuloo bokk ci benn benn coalition. Mhm. ngeen dem au pouvoir ñu jël la. Mhm. dénk la ci cër. nga def ci juróom-benni at bu ñuy xool ñi nga xam ne def nañ juróom-benni ci seen place fii ci Sénégal depuis que Macky Sall est dañ koy compter yow nga bokk ci ñooñu. est-ce que xam nga ne je suis comptable de tout ce a pour remettre en cause ce qui est même si je ne suis pas coupable dans certains secteurs qui ne me sont boo xam ne kenn dénku ba ko mais moi je suis aussi aussi responsable coupable ñun ñoo ne président Macky falal fal leen ko même bu ñu ma jëlul woon je suis comptable parce que ku ma ko romb daf may naan mais seen waa ji mais je suis comptable mais gis nga àndandoo ni ñuy waxante dëgg quand ça ne va pas il faut le dire et non de tricher avec le boss. Mm-hmm. le boss c'est que il m'a dans le cœur je le cœur wax dëgg je ne tremble pas. amuloo beneen instance boo ko mën a waxee. super question là cette question bi sa m'intéresse parce que ça permet aux Sénégalais de mieux comprendre depuis que je suis avec le président Macky Sall mi ngi may déglu parce que cette émission est très attendue Pape depuis que je suis avec le président Macky Sall quand vous l'aurez devant vous dites-lui s'il a reçu Moussa sur le plan politique une seule fois officiellement ba may indi samay responsable samay militants yi taxaw bu ñu nee Moussa mu ne non kooku il me pose pas de problème il est tellement loyal intègre ça ne pose pas de problème je règle d'autres difficultés je comprenais quand li ma teg j'ai envoyé des audiences des demandes d'audience déposé ko palais man j'ai pas de piste pour dugg palais damay ñëw déposé ko gendarme mu dóor caché accusé de réception ñu jot on ne reçoit pas je n'ai pas d'autres canaux Pape pour lui parler et pourtant sama grand là respecte et vous n'entendrez jamais quelque chose lu ñaaw lu ma koy wax ça c'est de la démocratie la lay joué léegi di wax dëgg léegi c'est mooy léegi poser problème un exemple aussi aussi simple nga xam ne sénégalais yi déglu ni ko temps yi quand je dis que je suis contre un troisième mandat c'est lui manquer de respect bien sûr non je suis désolé bien sûr ah, pour vous mais bien sûr pour vous mais bien sûr c'est pour vous mais bien sûr et pourquoi expliquez-vous parce que da nga ko def ci ci ci ci ci ci wane nii da am fit wala da nga am fulla wala da fayda sa ay morom dañ leen koy laaj duñ ci tontu parce que dañ ko jox respect dañ ko jox cër mais ragaluñ ko. loolu mooy manque de respect non. ragaluñ ko xam nga. mais dañ ci non non ragalu ñefe. voilà non non on n'a pas parlé de mhm. ragal. Mhm. man xam nga kan laa ragal. Mhm. yàlla et son prophète. point barre à la ligne. dama ne fu ñuy waxee dëgg ñu ngi ko wax mu xam ne kii il est fidèle kii dans ses idées kii du ma nëbbatu. kii c'est pas un caméléon mais dama ne vous parlez de ce troisième mandat nga ne le fait que ñeneen waxuñu ko. gis nga la président Macky Sall moom la fi yàlla teg te ñu ñoo ko fi teg kenn ëpp ma ci part. ëppoo ci kenn paar aussi. oui je suis d'accord. waaw ëppoo ci kenn part. non boo ko répété trois fois si tu veux. Oh, ëppoo ci kenn part. soo bëggee répété quatrième fois. ok allez-y. pas problème. Mhm. dama ñun ñoo ko fi teg. Mhm. bu fekkee jël na benn décision ne ñi nekk ci Benno Bokk Yaakaar mooy dans la coalition. Mhm. parce que cette euh, décision là n'a pas été prise sur le plan administratif en tant qu'institution. ci mhm. Benno Bokk Yaakaar la ñi ma àndal yëpp bu leen wax ci lii. on est d'accord. Mhm. nga wax pourquoi ñenn ñi bu ñu waxee dans un sens ñu bàyyi leen ñeneen ñi bu ñu waxee dans l'autre sens ñu rëq seen digg je vous pose la question vous êtes muet là. maître je suis la question allez-y xam nga dafa am benn ligne de conduite boo xam ni nga fekkee ko ak nga bañ ko fekkee. Mhm. bari na ci ñi nga xam ne ñoo bokk ci APR wala ci coalition euh, Benno Bokk Yaakaar. Mhm. waxtaane nañu ko que troisième mandat bi bëgguñu kenn wax ci nañu liggéey te def leneen mais loolu dégg nga ko. Euh, su fekkente ni da nga wax le contraire da nga da nga défier euh, da nga da nga da nga défier autorité bi. c'est pas la défiance je ne suis pas d'accord sur ça je vais vous dire pourquoi quand ko sànq. ce n'est pas parce que sama sama sama non non non attendez attendez attendez ana discipline attendez euh, attendez euh, attendez euh, ana discipline militant dans tout ça vous savez vous savez ana discipline militant dans tout ça Pape gis nga nañu waxante dëgg mais ana discipline bu dee ni ku mu neex nga wax lu la neex du question lu la neex li la neex mais ñooñu ñooñu di wax lu la neex te kenn laa lu leen neex te ils sont nommés par décret comme moi et Mbaye Ndiaye et l'ancien premier ministre Boun je veux pas personnaliser quoi gis nga Pape il faut qu'on se dise la vérité si vous voulez que sa émission animée tu peux le faire comme ça mais Sénégalais yi ñu ngi xool ne xam ne fu dëgg bi nekk c'est pas de la défiance moi la question m'a été posée dans le contexte africain de la CEDEAO c'était la question du Mali hmm. c'était le 24 août dernier loo xalaat si ñii di tripatouiller seen constitution pour se représenter une troisième fois j'ai dit que c'est un contrat constitutionnel et ça concerne le président Macky Sall est ñu ma est-ce qu'il y a son deuxième mandat ma ni oui loolu je n'ai fait que répéter lu ma imam bi wax moom moo ne il a son deuxième mandat je les vidéo vous les avez c'est devenu une infraction de répéter lu si imam bi wax. ak ban ko waxee. non non peu peu importe. non si peu importe contexte. man dama ne man quand je suis avec quelqu'un quand je suis pas d'accord je le dis si vous considérez que c'est un manque de respect c'est vous qui le dites mais les Sénégalais ne le disent pas. Euh, est-ce que xam nga euh, est-ce que doon nga d'accord yow ci sa biir parti. Mhm. alternative générationnelle. tout à nga joxe ay directives. Mhm. am kenn ci ñoom koo xam ni da koy da koy da koy euh, du ko respecter. mais ñun man suñu parti bi est-ce que boo soo déggul bruit bu bari c'est parce que la démocratie moo fa parti bi moom moo ko dañ ma ko dénk ci la vie di tout mais xamoo sens bi. démocratie kay fu mu bari bruit bi bari. dama ne. démocratie kay c'est le contraire mais gis nga. on n'est pas encore fu dictature am kay dama ne am bruit. non non non fu dictature am nekk du am bruit. bu la bos xoolee nga sëgg da ngay xam li la li lay xaar xam nga Corée du Nord la jarul mu lay wax bu la xoolee nga xam lépp dëgg la. d'accord mais nous sommes dans un pays démocratique nous sommes dans une association qu'on appelle coalition démocratique. donner sa avis donner sa opinion c'est devenu une infraction répéter même li la sa imam jàngal c'est devenu une infraction on va où on va où on s'est battu ici il y a eu des morts des martyrs ici ça ne doit pas servir à autre chose wala dañu bëgg xaar ba à la guinéenne là à un mois des élections quand on est prêt ñu la waaw léegi ma ngi prêt je fais ou je ne fais pas on ne tremble pas sur certaines choses en 2012 quand on se battait bu ñu doon xeex contre Ablaye on se battait a eu des morts ngi taxaw boobu ñu toogee tremble pas sur des principes mu leer. Mhm. voilà ma position. d'accord léegi donc maître comportement yooyu da nga bokk da nga koy xeex quoi da ngay xeex pour que nit ki lu mu bëgg wax wax ko et puis troisième mandat aussi bañ fi am est-ce que da nga jël décision pour pour pour pour combattre loolu. est-ce que euh, Pape depuis que je suis nga nga ma xamee mës nga ma dégg ma wax wax bu ñaw ma tooñ ma saaga. jamais non non non xeex ci politique rek. non non non on me dit souvent li ngay wax neexuñu mais moi je suis pas li may wax kenn mënu ko dindi parce que lu ma xamul duma ci dugg ci vérité lay dee li ma lay wax c'est une vérité crue moo tax je. non da ngay yem ci wax ko wala da koy xeex loolu laay wax. par exemple man ba combat le troisième mandat. combat laa la wax waxuma la wax je combat tout troisième mandat parce que boobu ñuy def constitution bi nga xam ne président Abdoulaye Wade moo ko fi def lu ñun ñoo ko fi indi y a eu des modifications mais sur le nombre de mandats il changement. c'est sur la durée des mandats moo am problème. waaw léegi nag maître ah est-ce que doo dem doo gën a doo gën a sori ci sa ci sa xeex. mooy par exemple tey nenga yaa ngi ci mag 2012 ne nga yaay yaa ngi yaay seen coordonnateur. Mm-hmm. est-ce que mënuloo génn ci coalition benn Bokk Yaakaar. Euh, pour assumer et assurer aussi sa xeex bi nga xam ne moom ngay def. Euh, merci beaucoup Pape si question bi nga xam ne am na solo trop trop trop trop soo déggee man la ba may toog fii maa ngi nii maay le coordonnateur cette précision sànq man je ne sors jamais un mot comme ça. je profite de l'occasion pour saluer tous les leaders de Macky 2012 yi nga xam ne wóolu nañ ma le 7 septembre 2019 réitérer seen euh, confiance lorsqu'il y a eu la rébellion ba tey ñu amoon sax réunion tey compte tenu du fait que ma position gêne certains dans la coalition du ma dugg ci dig ci ci les raisons ou les trucs je profite de l'occasion jaar na ko yëpp compte tenu du fait que day gêner certains je me départis aujourd'hui officiellement du titre de coordonnateur de Macky 2012 demain je daañu ko entériner incha allahu rabbi mhm. deuxième chose je démissionne de la coalition Macky 2012 qui est la coalition maire bu yóbbu Macky Sall ba coalition boo xam ne mi ngi ci biir benn bokk yaakaar parce que booy gêner ñenn ñi te yàlla xam na ni ay xarit lañu. vous comprenez ay xarit la ñu xam nga y' a pas d' animosité entre nous ya mm-hmm. doo dégg sax coow ci affaire boobu. Mm-hmm. Mm-hmm. mais toog nañu benn yoon waxtaan daañu toogaat waxtaan mais je considère que man bu wax dëgg jotee noppi sikk la je ne suis pas politicien je suis politique. je ne vis pas de la politique. d' accord